ومنفعا لكل هاد مسلمين ومدفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بنوف ارتدى ووجة على مخالف عداه وحجة لمن بنوف ارتدى وحجة على مخالف خدا وحجة لمن بدوف ارتدى وهجة على مخالف غدا وملبا لطاعة اللحيم ومربا من طاعة الرجيم ومدركا لسبل اتباعي ومدركا لسبل ابتداعي ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وارد وجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنى بها لبي واغفر لمن امرهم به جميع ولجميع من اعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير لكنا ولنجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحياة ci la sëñ bi génne woon Mbàkke Baar dem liggéey li boromam liggéey boobu lañ bëgg a tàmbaliwaat ngir jàppale la ci liggéey bii nga ne liggéey bi tamit ni ma ko tàmbalee wàll ñii ni ñoom dama dem ni defar plan yi ñu defaral ma plan yi xool nañ ne ñetti daara la daara ju nekk mën naa jël ñaari junni nit danañ fa jàngee alxuraan danañ fa jàngee xam-xamu diine danañ fa jàngee médalis ba ma noppee damaa dem ca université ba wax ak sëñ Ahmadou Bari bi xam seen programme mu jox ma téere yi léegi programme université ba la ñuy def ndax booba bag ngay tàmbalee man ma bëgg tàmbalee primaire ba bag ngir mu ñëw ci université bi ñu defal la ko ci ñetti xiblay Tuubaa yi ndax loolu sëñ Sidi Mokhtar moo ñu joxoon ñetti daara yooyu ñu bëgg caa na commencé liggéey bi ngir mu mën a dem liggéey bi nga xam ne léegi moom lay defar léegi liggéey boobu nag moom moom moom la ñuy wane nii pour bu tàmbalee tabax yi ni nga xam ne noonu la war a mel. léegi léegi nag moo war tax ma ànd ak mbokki taalibe yi yéen yéene le 10 août bi ñu jëm ngir ñu teg xeer wi daara ju nekk 1 milliard 128 millions moo ko tabax muy ñetti daara moo tax ma jox la 1 million 128 mille million 128 millions dama ko def addee suñu soixante des baar ndax moom yéeneem la. ci alxuraan yéeneen la ci kër sëñ Touba mébitam mooma mu bëggoon li mu doon def suñ borom àggaleel ko ko moo tax mu bàyyi fi ak njaboot njaboot googu nag dañoo bëgg ànd ak yow liggéey sëriñ Touba liggéey bi sëñ Touba bii tamit dama lay ñaan liggéey bii mu sax ba faaw mu bañ a doon loo xam ne dañuy génn at àdduna muy muy taxaw na doon loo xam ne nii day sax am ñu ko saxal moo taxit dama ne nañ ci ànd ak euh, mbokk yi waa kër Serigne tubaay yi ñu bari dem naa ci ak ñi nga xam ne nangu nañoo ànd ak man liggéey bi ñu nas ko nasin woo xam ne nii bu ma génn àdduna day dox keneen day dox danañ ko teg tamit ci ay programme yoo xam ne nii danañ man a dundal ñooñu ak nan lañ koy mën a defee ba mu àgg ndax lii nga sër fii ci daara ju mag ji ci université ñun bëgguñ daal lu dul sëriñ bi bëgguñ lu dul yitey sëriñ bi bëgguñ lu dul doxin wi nga xam ne moom la sëriñ bëgg te def ko ci njaboot gi ñun ñu nekk ci doon taalibe sëriñ bi te liggéey sëriñ bi looloo tax it ñu ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy seen dund ci sëñ Touba am na ak ñeneen njaboot gi ànd ak yow ñëw siyaara la yëgal la ko le 10 août bii ñu jëm ci lañ bëgg a teg xeer wi ñu def ko fee ci kër sëñ siidu Muxtaar gi ndax ci wetu këram la ma joxoon foofa terrain boo xam ne mën na côté bu ne téeméeri mètre léegi nag état la digaloon mu tabax ko waaye mujjul àgg ma ne ko comme bàyyi nañ ñu fi ñu liggéey ko ndax sëñ Modou Moustapha sëñ Touba dafa junjoon jumaa ji waaye sëñ Modou Moustapha ko àggale sëñ bi bàyyiwu foon li lim ñu fi bàyyi nag ñun jëfal sëñ bi rek ñu fi bàyyi loolu nag nga ñaanal ñu wér kàttan xéewal wërsëg ak barke bu yaatu ñu jëfal ci Serigne Touba maa ngi jéggalu baax a baax. xamoon naa taxawaay waaye gën naa xam gën naa ko xamoon na taxawaay na koo xam waaw lépp gën naa ràññeeku amiin sa yëpp ak barke Serigne bi taxawaay bu baax a ne xam nañ taxawaay bu baax a baax waaye lépp pàggatu sëñ Tuubaa la. mu ne waaye lépp pàggatu sëñ Tuubaa la. lu ci feeñ lu yéem lu ci mu ne ko waaw mu ne ci pàggatu sëñ Tuubaa yi. a baax. nga xam ne yi bu baax. waaw jërëjëf yàlla àggale sa yéene. yàlla tàllal bisimilah.